waaye ni ñu ko baaxoo di defee mooy jàngal aayaat dooru ñëw ci jëm ko firi ak jëm ko tekki aoudu billahi min alsheytaan arrajim kadalika ma ata alladina min qablihim min rasulin illa qaalu saaxirun aw majnun atawaasaw bih bal hum qawmun taaxuun fatawalla anhum fama anta bi maluum wa dakkir fa inna dikra tanfau lmuminin sadaqallahu alazim wa ballax rasuluhu lkarim wa naxnu ala ma qaala rabbuna wa mawlana min alshahidin allahuma ijcal alqurana lana fi dunya qarina wa fi lqabri munisa wa fi lqiyamati shafia wa ala siraati nuura wa ila aljannati rafiqa wa bayna naa wa baynaar sitran wa xijaaba wa ila alxayraati kulliha dalilun wa imaama bi wa juudika wa karamika yaa karamal akramin mbokk yi yàlla jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot yàlla nangul nu sunu koor nangul leen sunu mbokk sunu magum daara al ustaas Asan Fall moo daan wax bala ngeen a firi jàng leen ko ndeysaan nu far rekk na ca xam naa léeg-léeg nuy jàng rekk <laughs> ñëpp ne këpp ndax baat bu naqari waaye tabarkàlla eh, kóllëre la sunu digganteeg al Oustaz Assane Fall nekkoon ci usine ñaari tëli te toxu woon yëmbal yal na yàlla yërëm ko jéggal koy bàkkaaram noonu ci surta Daariyaat aya cinquante cinq wa dakkir wa dakkir mu am ci pénc mi ñu jóg fas yéene féete woo fàttali googu di fàttali nit ñi li leen war ci pénc mi di leen fàttali li leen war ci diine ji di leen fàttali li leen war ci bokk gi ba tabaarakallahu ñu sàgganoon jàmbaare ñu jàmbaare woon gën a jàmbaare gaa yu baax yi du ko tuddee daawa a daawa ñu nekkoon nag ci lenn ci defin wi waaw yennat ci defin wi ci ànd ak abdallah ibnu ahmad al allaaf gafara allahu lahu walidayhi walil ñu tolloon démb ci wasila li tathiri ala al xuluub jëntukaay wala caabi xol nga xam ne mën naa yëngal xolu nit mën naa fexe ba mbokk ci jàmbaar yi ma limoon ca ba ci jiitu mooy muuñ bu ñaareel ba gaawu nuyoo bu ñetteel ba addiya bu ñenteel ba noppi ak néew ay wax ca la bokkoon bu juróomeel ba mooy rafetal ni ngay dégloo ki wax ak yow te am tegginu cellantu mu indi woon ci beneen <coughs> mu indi woon ci beneen mooy xusnu samt wal madhar maanaam nit ki fexe ba xeetam ak jëmmam ak waxam ak doxinam ak yépp mu fexe kemtalaay kàttanam mu jagal ko yooyu dafa am solo lool ndax hadis ba daa wax ne inna allaha jamil yuhibbul jamaal yàlla dafa rafet bëgg lu rafet waaw kon kiy woote ci diine ji mu bàyyi xel ca yooya bu baaxa baaxa baax ndax dikk na ci muslim ñu jële ci omar ibnul xataab mu ne yonent ba daa wax ne innahu la la yujibu ni ashaab naasik nasifa thawb tayiba riix nee na am na lu ko neex lool ci waxambaane wuy góorgóorlu ci diineem te fooko fekk lu set lay sol foo ko fekk xetam day neex muy xeeñ yooyu parfum ak yooyu boo ko defoon fi ne ñu ne daa bëgg àdduna waaw walla ñu ne la nangam nangam abdullah ibnu ahmad ibnu hanbal nee na inni maa raaytu ahadan ansafa thawban wala ashadda taahudan li nafsihi wa shaarim wa shaar ras wa chaaru badanihi wala anfa thawban wa ashaddu bayaadan min ahmad ibnu hanbal doom la woon ci imam ahmad ibnu hanbal nee na musul gis ku gën a ku sëlvi seeni baayam <coughs> set ay yére waaw fonk boppam di defar ay mustaasam di defar kawaram kawar yaramam yuruy set wecc la ci ëpp def daan weex mu ne gisul ku ko dàq ahmad ibnu hanbal loolu dafa am solo lool ci pénc mi waaw dafa am solo de mu ngoog loolu tam dafa bokk ci liy ubbi xolu nit mu bëgg ku mel noonu ndax nit ñi tamit dañoo bëgg lu rafet dañoo bëgg lu jekk ak lu civilisé macha allah ba ñu bëgg ko ci daaya bi am na ci solo ndax ci yi ubbi xol ca la bokk bu juróom-ñaareel bi mooy di joxe ci li nga am te jéem a faj aajoy nit ñi waaw di joxe ci li nga am te jéem a aj faajoy nit aajoy nit ñi sa kamtalaay waaw benn taaxuraankat ca arab ya dafa mas di taaxuraan mu ne ahsin ila nnaasi tastaabid xulubahumu fa taalama staabada al insaanu insaana ihsaanu <clears throat> ahsin ila nnaasi tastaabid xulubahumu fa taalama staabada al insaana ihsaanu loolu la way taaxuraankatu arab ba wax ne del def lu rafet ci nit ñi su ko defee ñu topp la mu ne bariwaa na nit ku topp nit la tax mu topp ko rafetal la lu am solo la loolu waaw ndax nit ñi amal leen njariñ daa baax lool waaw baax ci ñoom daa baax lool te loolu mën naa am nit ki def ko mu jural ko ak bëgg fa sunu borom ahabu nnaasi ilallaahi anfauhum linnaasi ab hadis la jaam bi gënal yàlla ci jaam yi mooy jaam bi ëpp njariñ ci moroomi mi jaamam kon loolu ci li am solo la bokk ci wàllu Euh, miftaaxul xalb wala liy ubbi xol nit ki déglu la wala mu bàyyi la xel waaw bi ci tege muy juróom-ñetteel bi mooy basalul maali mooy tabe di joxe alal ju bari di ko jox nit alayhi salaatu salaam daana wax ne inni la uti rajul wa xayrahu ahaba ilaya ila ilaya minhu xashyatan an yakubahu llahu fi naar aw kama xaala daana jox nit daana jox nit pour convaincre ko ci mu jëm ci moom ndax nangoo ànd ak moom ndax mu mucc ci sawara aw kama xaala salawatullahi wasalaamu alayhi loolu ca téere bu wér boobu nga xam ne ginnaaw alxuraan mooy téere bi gën a wér ci téere yi waaw amu ci benn hadis bu imaam Buxaari sosal boppam mbaa al sosal ko seen bopp waaw ñàkk gim ñàkk a nekk arabit yàqalu ko liggéey ba waaw ndax nit ñi am na ñooñ duñu araab ci cosaan waaye ñoo dàq yàq làkk arab yi xëy na arab sax waaw sas barham Diop dey daana toog ca Maroc ca jataayu buur ba ci weeru koor wi làkki arab ba nit ñi di fatt waaw la feeñoon na ca Cheikh Al Hadj Abdul Aziz ak Serigne Cheikh Mbacke seen aj màkk ga mu ngoog kon alayhi salaatu salaam daana jëfandikoo joxe ndax joxe mën naa ubbi xolub nit waxoon naa leen ci bindi weesu waaye daa xool yonent bi ko ah aka ma laa waaw ñu ne tekk mu ne ko waaye aka ma laa bëgg mu ne ko lu waral ñaari mu ne ko bañ nga mooy dama laa contrôle di déglu say noon li tax ma bëggal nag danga maa jox ba xamatuma nu may def mu ngoog loolu daloon na safaan ibnu tubarkal la ci digganteem ak salawaatullahi wasalaamu ali joxe rek mu ngoog yàlla na nu am lu ñuy joxe di joxe rek <laughs> waaw dooro yàlla am lu ñuy joxe di joxe rek tabarkalla mu ngoog lu am solo la ci ci pénc mi maa ngi ci suratu ad-Daariyaat maa ngi ci aaya cinquante cinq wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin maa ngi ci maa ngi ci wasilatun li maa ngi lim wasail yooyu bi ci tege muy juróom-ñeenteel bi rafet njortu ci nit ak di leen nangul seen ngànt rafet njortu ci ak di leen nangul seen ngànt waaw nit day rafet njort ci mbokkam jullitam jàpp ne moo la gën bu dee gone nga jàpp ne moo la gën ndax moom bëreegu bàkkaar bu dee mag nga jàpp ne moo la gën ndax mbëri nay tuyaaba foofu daal boo ko fi rafet njort dina am solo lool boroom xam-xam yi jàngale daawa dañoo wax ne gisuñu yoon wu ko gën a gàtt gisuñu yoon wu ko gën a jagit pour dem ci xolub nit mooy rafet njortu ci moom kon ñi la wër ñépp rafetal njortu ci ñépp seytaan bu ba sañoon doo rafet njortu ci kenn doo wóolu kenn doo bëgg kenn seytaane moom loolu mooy affaire am noonu la bëgg waaw waykatub arab ba daana wax ne ida saa filul mari saat dunuunuhu wa saddaqa maa yaxtaaduhu min tawahumi waaw waykatu arab ba moo ko wax nee na bu ñaawee jëf rek ñaaw njort ku rafet jëf say njortu rafet mu ne ku ñaawi jëf ñaaw njort njort la di di la dugal ci defe naa rek ak yaakaar naa te sunu góor ga xaaja Abbas Sàll moo daan wax ne defe naa yaakaar naa eh, nii la mën a demee ak wóor na ma ne ñeent yooyu doy na waar lool waaye wóor na ma ji mooy xam-xam al waaye ashakkoog al wahmoog al zannu mu ne amu ne tegal fële dañoo tànnante rek waaye amuñu solo bu fukkeel bi mooy ilaanul mahabba wal mawadda lil axirin woneel yëgleel sa cofeel yëgleel sa bëgg ci ñeneen ñi del doxe bëgg gi del wax bëgg gi salawaatullahi wasalaamu alayhi mi ngi nuy jàngal nee na ida ahaba ahadukum saahiba falyatihi fi manzilihi falyuxbiruhu annahu yuhibbu allahu akbar oustaz Cheikh Tandiam moo ko jàngi woon yonent bi nee soo bëggee nit dangay dem këram ne ko bëgg naa la soo bëggee nit mu ne képp ko bëgg ci yéen nit na dem këram yëgal ko ne bëgg na ko hmm? waaw waaw ku bëgg nit demal këram yëgal ko ne bëgg nga ko yàlla nanu yàlla boole bëgg waaw waaw yàlla nanu yàlla boole bëgg am na solo lool tabaarkàlla mu nga fukkeel beeg benn mooy jéema a dë jéem euh, nekk ak nit ñi almudaaraat lañ koy wax mooy nga xàmmee mudaaraat ak mudaahana mudaahana mooy raayal nit ñi seen ginnaaw waaw loolu mooy mudaahana bu dee mudaaraat mooy xam ni ngay dundeek nit ñi lu ne nga jox ko aw turam dana tax nit ñi xam li xew nee na jenn waaye daa ñëwoon ca sallallahu alayhi wa sallam suñu yaa Aysa moo koy nettali daa di sone ci buntu kër gi walla mu yëglu waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ak moom baat ba bi'sal axul ashira eh, bi mu toogee yonent bi alayhi salaatu ubbil ko xar kanamam waaw toog moom ba dem jot mu dem su ne Aysa ne ko man de sa diggante sunu gan gii gis naa ci nangam nangam ba nopp ma gis nga e, yaatal ko sa kanam yaatal ko ci dalal gi mu ne mu ne ko ndax mas nga maa gis ma toog ak kenn ci mbooloo jikko lu bokkut ak li kii mu ne ko déedéet mu ne ko inna charra naadi inda allahi manzilatan yowm alxiyaama man tarakahu naasu liqaa'i fahshihi aw kama xaala mu ne ko kii dafa ñaawu làmmiñ nit ñépp ko ragal ndax du génn ci gémmiñam gi wax ju nit ñu mën a jariñoo mukk mu ne moo tax su pexe amoon duma ko recevoir comme pexe amut nag noonu rek lañu mën a dem ak moom loolu mooy almudaaraat gan goo xam ne xam nga ni ñépp a ko bàyyi ba noppi mu dikkal la problème am waaw alayhi salaatu salaam def ak moom noonu ba mu jaaxal sunu yaay Aïcha waaw na solo lool def ko ba génn ca mbokk yi yàlla na jàmm yàlla na seen ak seen njaboot maa ngi ci sóoratu addaariyaat maa ngi ci ay cinquante cinq wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin maa ngi ci eh, addaawa ndax wa zakkir wa zakkir ja yaatu ma toll ci bunt yu am solo yi nga xam ne bu amee ci pénc mi wax ak ñoom yomb ñu wuyu la yomb waaw mu ngoog yal na yàlla jàmm yàlla nag ci ak seen njaboot koor gi ñëw na fekk nu fi buy dem yàlla ñu fi bàyyi eh, su ko defee yooyu ay mbir la yu am solo yoo xam ni day am su nu nekkee tey ci luñ tuddee weeru koor am na ñu baax ñuy tuddee aramadaniyaat télé ci rajo yaa ci te nekk ci koor gi yendoo koor waar la day gën yomb waaw waar la day gën a yomb moo tax fexe ba defar ay ndogu am ca solo fexe ba organiser nit ñi am na solo fexe ba e, jariñ leen ci koor gi am na solo fexe ba jox leen yóbbalu koor am na solo waaw yooyu yëpp ak musaabax yi nga xam ne moom la penc mi di def yooyu itam am na solo mooy kan moo fi dàq bind alxuraan jiñ yendoo démb mooy kan moo fi gën a mokkal alxuraan ji nar yendu dimanche incha allah ak yeneen konkur yoo xam ne jombul gaañaa ngi ciy xalaat waaw kan moo dàq woy ci arab kan moo dàq taalif ci arab kan moo dàq kan moo dàq kan moo dàq incha allah jombul te yooyu am na solo lool ci ci ci ci ci koor gi ba demee Cees am nañu ba demee Jurbel am nañu ba demee Tuubaa am nañu Tiwaawan dëkk boo dem léegi am nañu waaw bu dee concours national bii nga xam ne Sénégal yépp a ci bokk ci wàllu bind alxuraan walla ci wàllu tari ci biir weeru koor wi rawatina démb ñi toogoon kenn bëggutoon a jóg ndax yiñ leen doon won ci daara te daara moom ko kenn bëggutoon a jóg te mu am solo lool mu ngoog hmm, loolu am na solo te it boroom borom tabaaraka wa taala mooy def ku ku jaare mbir mi fi nga ko war a jaare rek daal ciy gis lu am solo ko defee bokk na ci xalaat yooyu bàyyi xel jigéen ñi waaw bàyyi xel jigéen ñi jigéen ñi ka cay yaay waaw ka cay sër ak ku mën a doon ci jigéen dañoo sopp walla dañoo soxla ku leen taxawu dañoo soxla ku leen taxawu ñoom tam ci yëf yi lañu mbokk ndax bu ci kenn ci ñoom jagee la ko wër lépp jag al ummu madrasatun isa ahdataha ahdata shaaban tayibal araaqi waaw am na solo lool mhm. am na solo su ko defee ak jaamu yàlla la gu ama am solo gu ñépp war a war taxawe maa ngi ci suurtu daari daariyaat maa ngi ci ay cinquante cinq maa ngi ci wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin maa ngi jéem a indi lenn ci defin weeg yu nu demee beneen tomb bi jaaroon na ci moo di sunu digganteeg internet diggante ñi nga xam ne ñooy jàngale diini ak internet waaw internet xaw ma net naam déet waaye mënees na cee liggéeyal diine waaw mënees na cee liggéeyal diine jëntukaay la bopp àdduna si dañ koo bokk waaw ñee di fab lee def ca ñee fab lee def ca ñee def ca kenn ku ne bagage yam yor rek mu def ca waaye jullit bi mën na koo jëfandikoo jëfandikoo ko ci digganteem ak i bokki jullitam di ca dugal ay waxtaan yu am solo di ci dugal ay e, vidéo yu am solo ba sa diggante ak say mbokk ma nar a tax wal mu'minuna wal mu'minaatu baadum awliya baad ma ci alquranul karim borom baa ko wax yaamuruna bil maaruf borom baa ko wax wa yanhawna anil munkar te loolu nit mën naa toog fii defal ko ci waa adduna mu yaatu lool waaw bil maaruf mën ngaa nekk dakaar yaamuruna bil maaruf waa Allemagne bokk waa Japon bokk waa France bokk Belgique Danemark adduna si yëpp mën a bokk ci wax joone dama ne mu ne en rek tabarkal moo tax yoon la wu am am solo moom sunu gan googu tudd internet waaw tabaarakallah beneen tomb bi mooy ñi nga xam ne ñooy bokk di ko def ñi bokk di wa zakkir ñi bokk di daawa ñenn ña ak ña ca des fexe ba joxante loxo gi am jëriñant gi tàmbali am te xam ne diina ji kenn munta koo féete fépp sa Ahmed Dame Ndiaye moo ko jàngale ku ko bëgg féete fépp tàmbali koo yàqal kon mboolem ñu ko séq ñu tëdd leen ay duaat waroon nañoo xame bëggante joxante loxo jëriñante ndax ku ca ne ci ñoom danga bokk ci ki ñi duy ndox seen na kër bàyyi ngay lakk ñu fas yéenee fay lakk ga waaw sunu classe gi nga xam ne mënaguñu ko mokkalaguñu ko ba ñu séenee lakk gi am seen potum ndox lañ yor ku leen xeebal potu ndox booba xeeb nga lu mag ndax potu ndox mën naa fay aw xal ñenn ña siiwa lañ yor ñenn ña paan ñenn ña paan gu mag grangal ñenn ña bërigo ñenn ña citerne noonu la njàngale mi ci penc mi melit sunu kalaas gi ñooy ñu yor potum ndox dem sotti ko ca lakk ga waaye la la tàmbale ca potum ndox ba ba ca citerne ba ñépp li leen yitteel mooy lakk fay lakk gi rek fay lakk gi rek waaye penc mi ku yor potum ndox dañ lay song naan la sa potu ndox bi mënul ci dara soxla wuñu ko yow li ngay def nii nekk ca ba nga sànni potu ndox ba te xëppoon ko ca taal ba moo gën tuuru ko ci suuf mooy ñi nga xam ne dañoo tàmbali di yëngutu ci loolu te saaboo yàqeek masque bés bi yépp yow lañu ñu yendoo bés bi yépp yow la ñu yendoo saaboo boo yàqoonu masque waaw nga bëggoon wax asbaabun tajaalul internet fi muqaddamati wasaili daawa ilallah nga bëgg koo liir nga ne asbaabun tajaalul internet fi muqaddimatu ay boo ko waxee fii muxaddimatu ci yow la ñuy yendu naan la eh, xarf yi da koo jar tabarkalla mubtada bi xabar bi rekk coow li na kurru déedéet loolu rek mu ngi mel ni rek ki yor potam ndoxam jëm ca lax ga nga ne ko doo ko fayee ñun suñu nangam nangam waaw alu saas daam Dame yàlla ko yàlla yokk wér dana faral di lépp lépp bu am solo ci penc mi nana lislaam dafa doon góor gu màggat si Oustaz Ahmed Dame Ndiaye nee lislaam daa doon góor gu màggat mu ne góor gi bi màggatee yaram yéppay métti waaw féppay métti oppos màggat la ko wolof di wax nee foo laal rek mu onk nee na góor gi nag doomam yépp faj lañ jàng doomam yépp dañ yëngatu ci am paj waaw kenn ki ñëw laal bopp bi góor gi onk te moom faj bopp la man mu daal ne góor gi bopp bee metti naka mu dem jeneen doom ji ñëw laal loxo bi góor gi onk mu ne góor gi loxo bee metti keneen ñëw laal biir bi góor gi onk kooka ne biir bi la keneen ñëw laal tànk yi mu onk waaw kooku ne tànk yi la ñeenti médecin yépp ay doomam lañ liñ bëgg mooy seen baay faju moo lu teewoon ka bopp ba faj bopp bi waaye déedéet dafa taxaw ne leen maa ngi xaar ba kenn jéem fee faj góor gi ci tànk loolu rek lay xaar kenn da dangay wax rekk maa ngi xaar ba kenn laal bopp bi kenn dangay wax rek maa ngi xaar ba kenn faj ko nangam ñu ne ca werante woo ba góor gi na këndëng ñu nekk ca werante ba góor gi na këndëng mi ñi ci nekk di jàngale daawa te fas yéene doxal wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin penc mi ñi ci nekk di ko doxal nun lañu mel nun la ñu mel ñenn ñi dañoo wax ne lislaam problème bi mu am mooy aqida ñenn ñu loolu lañ wax ñenn ñi ne déedéet social la am ñenn ñu ne déedéet al axlaaq la am ñu ne non ibaadaat la am kenn ku ci nekk sa morom nag doo ko fi doo fi fajal lii ñëwal ñu faj lii waaw ku ci ne na sa morom ñëwal ñu faj lii doo faj lii fu góor gi jëm mbaa def def ni góor gee mbokk yi duaa ñi bokk ci wa zakkir fa inna dikra tanfaul muminin ñi bëgg a bokk ci ballixu anni walaw aaya ñi bëgg bokk ci wali an yahdiya bika law rajulun waxida yooyu yëpp ñoom ñoo bokk lu ñuy def benn tool la ñu nekk tool alaaji ngóor seen <laughs> eh, rekk ci la ñu nekk léegi nag bukki nee na bu tool bi ñëwee kay kay làndangu ma ngay bay kay dëpp néegu ma ngay way ma ngay bay kay waaru ma ngay way ngeen bal ma ma ngay ma ngay bay laa bëgg a wax waaw kañ sas moom tam ma ngay bay waaye kañ kañ dooñ ma ngay bay ñépp ci tool bi la nekk waaye tool bi léeg-léeg sëriñ si Ahmad Tijaan si almaktum nee nit ñi da dañuy fekk ña toog ca ker ga te jëm tool romb leen di xuloog ñoom ba bi so ña ci kër ga bayuñu ña doon dem tool bayuñu wal tabarkàlla eh, kon jumtukaay boo xam ne téeméeri million ak juróom fukk ak lu ko ëpp sax léeg-léeg boo xëyee mën leen a gis ci internet bi nga xam ne boo ne nangam nangam buñ ko wasaaroo wasaaree ñu bari jot ci mooy ñi nga xam dañuy partagé waaw dañuy partagé euh, tasaare ko fu ne ñu bari jot ci waaye ñenn ña luñ jot def ca commentaire bu ko yàq walla bu buñ bëgg mu yàqu yàlla jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot yàlla nañ bëgg alxuraan balaa koor gi jeex waaw iqrau alqurana fa innahu yaati yowm alqiyaama shafian li ashaabi professeur mu ñëw ci beneen tomb mooy jigéen juy def wa dakkir naka lay fexe ba loola amal ko résultat waaw tabarkalla sunu séminaire ba nekkoon tëngéej ci at yële ndeysaan jigéen ñi am na ci ñoo xam ne foofu la ñu bëgg a bokk ñoom Fat Bintu Jóob yal na ko yàlla yokk wér waaw ñoom Rabia Siise ñoom euh, Maam Jaara Ñang ñoom euh, Aja Caw euh, Aja Binta Caw ak ñi mel ni ñoom waaw ngoog ñoom soxna Mbàkke ñoom soxna Buso bari nañu kaar-kaar waaye daal eh, ñoom bu fekkee nekk nañ ci penc mi ñoom it bokk ca ña nga xam ne wa dakkir ja daf leen daf leen a soññ ñoom tam bëgg nañ ñu jóg ca biir Euh, nekk ca liggéey ba nekk ca liggéey ba dugalaale taraahum rukkaan sujjada yabtaxuna fadlan min allah kon foofu lay tàmbalee euh, rafet njort ci mbokki jigéenam yi nga xam ne dañoo nekk ci liggéey bi waaw jéem a xam dëgg te xam ñuñ dëgg taraahum ba ca tege boo xamee ne faqir daa fëgg buntu këram eh, mu xam ne sunu borom moo ne antumul fuqaraa ilallah wallahu huwal ghani ba ci tege mooy jàngal ay mbokki jigéenam jaxasoog ñoom yëg ne sa nashuddu adu daka adu daka bi axiika waaw borom bi jàngal na foofu wax ko Muusa yëgal ko ne joxonte loxoog Aaruna moo lay taxa am ndam waaw ngoog wa najal lakuma sultaana ca xisas aaya 35 jigéen jooju nga xam ne dafa bëgg a daawa bum séentuy tagg waaw bum séentuy tagg bum ragali xas bum séentu ay tagg bum ragali xas ndax ku ragali xas boo xëyee doo gont ku séentuy tagg it boo ci jotul doo gont mu ngoog walaw laa an thabatnaaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila la borom ba waxoon alayhi salaatu wasalaam moo tax loolu am solo lool ci jigéen gu nekk ca pénc ma fas yéene woo woote ci diine ba ca tege mooy fexe ba jànq ji tàmbulee euh, soobu ca mbir ma mu yëg ne ñooñu tam dañ leen di sàmmal liñ am jéemu wut luñ leen ca yokkal wa iz xadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqaa'idan li qitaal wallaahu samiun alim waajal jigéen ñooñu ñoom tam bu ëllëgee ñu mën a bokk ca liggéey ba jigéen juy def daawa daa war a fexe ba këram këram nekk benn centre rayonnement boo xam ne bi ku fa ñëw jariñu yooyu lu am solo la yaa lu seen amanu irkau wasjudu waabudu rabbakum wafalul xayra laalakum tuflixuun mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot teg leen seen baaram foofu ñaan suñu borom may nu dund ba ëllëg te weesu ko ñaan ko mu def jàmm ci réew mi def ko ci réew yi ko wër ñaan ko koor gi ñëw na fekk nu fi buy dem yàlla na nu fi bàyyi surtout daariyaat ay cinquante cinq wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin fa dakkir wala wa zakkir fa inna dikra tanfaul nañ soxna jégalu sëriñ si rawatina tafsir kat yeeg ñu mel ni ñoom rawatina duaat di alkibaar nga xam ne tabarkàlla foo junj xam nañu ko jërë ngeen jëf ki leen nekkaloon ci wàllu xarala bi moo di seen mbokk Alioune Badara Socé ngeen àndoon tafir beeg seen mbokk Alioune Sall ak sponsor mi nga xam ne saabu weer wi duggee rek ñoom ñëpp ñu ànd ànd ak ñun ci liggéey bi yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara waa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu